dégg nga <laughs> ñii nag Macky mii doon laaj rapport détaillé asamaan si génneel na ko rapport détaillé anticipé. waaw. Ah. comme l'a écrit la tribune. la tribune waaw. est-ce que ah, mi ngi fi pour gis <laughs> non bu fi nekkee bu fi ne te gis nga gis nga Macky Sall tukkee mii muy tukki. mënoo ko xam de. tukkee mii muy tukki alaaj bu fi musiba amee euh, waxtu wi daal jot ngir nit ñi wax ak moom <laughs> président Macky il faut nit ñi wax ak moom nit yàgg naa dem ci am farata doxi ko. assemblée générale Nations Unies bi lañ jàpp ne mooy rencontre internationale bi gën a ngand bi chef d'état yi di daje. Ah. dégg dara deful yow lu dul nga discours ñu ne la musiba mbaaba kumba xew na sa réew lakk am na fa dix personnes de nañ fa wala cinq. nga takk say bagages. demoon excuse dem dëpp ne man dama am urgence ndax musiba am na sama dëkk. nga dëpp lii tey bu ko fekkoon ñamee ca Niger. Uh-huh. Macky daa waroon a dëpp. yàlla dogal mu fekku ci biir réew mi. Uh-huh. mu dund koog ba door ci tuitam alaaji mastawu ñi nga xam ne ñoo ci lorule ba pare jëlu ko roppalaan ne mes ne ma ngay jëm ci ab ndaje moo xam ni ñu ngi koy amal ca Niger gis nga Macky nit ñi dañ ko wóolu jiital ko sàcc na élection yi sàcc ñu ko loolu opposition bay wax li buur compté daal di conseil constitutionnel dëggal ko ak cour d'appel mooy yaa gagné juróom fukk ak juróom ñett yow la ñu wooteel premier tour. Uh-huh. del bàyyi xel ñi nga xam ne voté luñ la. Uh-huh. gis nga ñi la woteel yow loo def baax na loo bëgg a def baax na déggoo ma de. Uh-huh. ñi ànd ak moom alaaji am ci moom cofeel lu makki def baax na lu makki bëgg a def baax na ñoo ñooñu duñu ay problème mais problème mooy nan lay def ba convaincre ñi nga xam ne woteeluñu ko pour ñu rëccu lu tax voteeluñu makki benn responsable APR amoo lay mënuñoo génn gàcce ngi leen di rey ñemewuñoo dem ci rajo yeeg télé yi parce que défendre leen défendable alaaji dafa miti dem di layal koo xam ne leer na la ne lii ngay wax ñëpp ñu ngi laan na ci poto di la mbaraj mbaraci di la tuutil di la humilier moo leen daal tey tous defuñu ko fi programme décennal le sept cent hmm. Hmm. Ah, wax sax dëgg la nee ci dix ans sax lii dafa bari ci réew moo xam ne yow nee nga liggéey nga ko mais sept cent cinquante milliards yi ci ah. Pape sept ci fàttali bi ko Pam Ngagne Ndiaye laajee yi nga koy fàttali faram fàcce bugaar waaw kay ñu ne inondation yi am na saafara lu mu tontu Pam Ngagne ne ko yàlla ji bu tawaatee na mu tawee woon mbënd mi ñëwaat ci Sénégal nga xam 750 milliards defuñu ko ci uh-huh. tey jii nag euh, euh, eh, amul dëgg seen yàlla jox na ko dëgg de seen kaw yàlla jox na ko dëgg de techniquement sax am na yoo xamante ni tey génn di ko jéem a défendre techniquement sax hmm. xam nga ñu du dëkk yanuwul maanaam parce que même ñoom techniquement ci wàllu urbanisme xam nañu ni hmm. ni ñu distribuer kër yi ni ñu daggee quartier yi ak cité yu bees yi Ndakaaru ni mu sakkane xam nañu ni mesure d' assainissement yi mu war a àndal àndul ak moom. parce que am na ci cité yoo xam ne mënuñu ko sax ñoom contrôler wala boog ñoom ñoo ko daggal seen bopp de façon précipitée. te cité yoo xam ne ay société nationale illégal moo tax précipité. li gën a garaaw yoo xam ne ay société nationale yu yëngu ci njaayum kër ñoo leen di jaay jaay leen ay site yoo xam ne assainiruñu ko. ñooñu jamono jii ñi ngi bënd. wala ñu jël mur. société nationale bi defar système ba pare xoolal foofu day taa baax jël miir bi bënn ko yóbbu ko ci askan boo xam ne ñoom dañoo dëbb dëbbal jënd seen kër benn société nationale jaayi leen alaaji liñ fi waxoon keroog àjjuma rek léegi la nga dégg ay nit naan la wax ji ci boppam ngeen war a baax ndax nit ñi tam kenn xamul li ñu bëgg ah c'est vrai eh, nañu wax rek nit ñi moom kenn xamul li ñu bëgg nañ leen waxante dëgg ñun nañuy wax ñii nga xam ne tey ñoo nekk ci biir ndox mi mbat mbati di bëgg a dee bu ëllëgee hmm. ñenn ci ñoom ñooy taxaw ak yow xuloo ba ne saay ndax benn responsable bu nekk seen koñ di leen may ay deux mille ay wax mmh. dégg nga mmh. ay sandwich mbuusu ndox mmh. gàddu leen jangat jangatee ci biir njaga njaay surtout suñu yaay yi nag utiliser yenn jeunes yi pour xeex dong ñun am nañ ci victime ab mbër jarul mooy tudd turam bal lañ ko dóor mu dee ñooñu ñooy taxaw ba ëllëgee alaaji di di di xeex ak yow boo waxee lii ne lii gars ñu ne li lii lii ab député nekk seen koñ amul benn njariñ dégg loolu ay bourse familiale sax ñuy bind seeni i jabar. waa député yooyu yow nañ la jàppale. waxal. ñooñu bu ëllëgee ñooñu nag xoolal ñoo lay jël dangar dangar yi nga nekk si seen biir oto yi bu mbënd mi jotee ñoom ñëpp ay daw. am na ñu bëri ñu def ay vidéo ana waaw ana amet ana lii ak lii ak man ko wax dama naan la mbër képp ku mënul dem ci inondation yi indi fa solution bu fa dem ñii solution immédiate la ñu soxla. immédiate. waaye dem fa taxaw def récupération politique nee nee ne am na ay opposants yoo xam ne yàkkamte nañ lii am ba ñu kilotu caxar caxari dugg ci biir xas maire ba dugg na fi boo ko defee ginnaaw ëllëg la ñuy teg nga nekk maire ñëw taxaw ñu génne lavaar ne la fii la ñëwoon naan kii dafa incompétent léegi lii liggéeyu état la. liggéeyu état la de. état ci boppam moo war a jublu alaaji ci lii te Macky Sall nag mënu fee nekk chaque jour mu naan donnez-moi un rapport détaillé yow Macky yow yow yow yow rapport nañ la détaillé bay bëgg dee. mais gars yi def impunité fii la yem quoi yow imagine njabootu Macky sàll gi kenn du def ab tojaange ba ñu woo la ci yoon man loolu moom ma jaaxal. mais Macky lu tax ñi bokk ak moom bu ñu leen woo ci yoon. mënoo nekk Sénégal nga am vision. ci ah, wàllu habitation la dëkkin laa wax dëkkin nga am vision ci wàllu habitation. déplacé hmm. désencombré Dakar. Ah, après lépp nga tënk ko jam ñaajo lu way gàtt gàtt gis-gis xam nga ni ndakaaru li suufam ak habitation di bona bona bona bona bon bon yëpp moo tax ne jam ñaajo hmm. amul lu naan foofu euh, boo boo xamee suuf xam dëkkuwaay. ba ndox mi fekk leen da ngay nawaat xalaatu Abdoulaye Wade bi mu doon xalaat ci ay lompul. imagine foofu ay ville mënoo fa gis mukk mu inondé. même bu amul assainissement. surtout bu ñu ko waajalee ak minimum d' assainissement. léegi nag fii ñu nekk nii moom. acca noppee gu ñu de te dañoo bul fàttali li muy faral di wax Dakar alaaji ñun binduñu suuf binduñu montagne binduñu dex binduñu géej da dex yi nekkoon Dakar di dund bras de mer yëpp dañu leen fat dañu leen tëj. yëpp la ñu fàtt <laughs> bu tawee moins de cent millimètres ndaw taw taw saa buy taw ndox bi suuf day génnaat. Mhm. ñu àndandoo daje. Mhm. moins de cent millimètres Dakar ko inondé amul pexe. mais technopole bu ñu fay defee ay entreprise gaañ. technopole fatt ko technopole dex la woon dex. fatt ko fatt mhm. complètement dafa mën a nekk. munul wallahi Dakar du mus a tàqali ko ak inondation mukk ci àdduna assainissement woo assainissement woo tous. mënul ne dex yi la. waaw mais mais loolu xam nga lan moo ko fàtt alaay nit bindul te xam uh-huh. yenn ci ay chantier man ma jox la benn exemple bu ndaw uh-huh. gis nga stade Amadou Barry uh-huh. ba ko gars yi toojee ne ñu ngi koy liggéeyaat ba léegi ñun suñuy koñ ci lañ commencé dégg taa inondé waaw kay nga école bii xale yi doon école bii xale yi doon doon doon doon kii doon doon doon examen mooy école vingt waaw ah. école vingt boobu nga gis na gis nga terrain école vingt waaw fi ñuy wax terrain école vingt moom lañ doon jàpp ne moom bokkoon na ci terrain yi gënoon a neex géej waaye ñu xam lan mooy inondation c'est ça mais gis nga keroog ba ñu toojee stade Amadou Barry laa lay wax ni ak seen chantier yi. c'est fini demal laaj waa ginnaaw raay. ak lu ñu dund ci wàllum inondation inondation keroog ba ñu leen indilee terre bi. c'est la ñu dee. la ñu dee parce que Demba Ndiaye nit dee na fa. yàlla na ko yàlla xare àjjana. terre boo xam ne dawul dikkul chantier yi mënul fexe ba pare saa boo jaaree ginnaaw raay. alaaji latari courant baa ngay maas nit ñaa ngi ah, bënn. nga jël ah, roppalaan dem bañu fi. Ah. kii bu jëlatee avion ñëpp war a jël avion topp ko. <laughs> ñuy jël avion mbënd na fi ay élection mbënd sayal na fi institution. kon nag mbënd mën na fee tax benn sommet kenn du dem benn sommet. waaye xanaa de eh, eh, xanaa déggoo li Pape Diop wax. non damay joxe exemple. ci ne eh, dama ne dama ne Macky Sall dindi na fi sena ndax mbënd. ndax mbënd. waaw waa ay haut conseil yii. dàq fi ay élection ak ay conseil économique. ba mu dàq fi ay élec ba mu dàqaat fi ay élection ndax mën rek te mm. institution yu ñàkk njariñam yi nekk fi ah, alaaji muy fay ay milliards yi milliards chaque année institution boo ci gis budget ba laal na téeméeri milliards jëm kaw te élection ñetti opposition bi lii ñu naan dañ leen koy bëgg a ndàmpe loolu mooy lan ay ñetti milliards chef de l' opposition waaye ñetti milliards yooyu dañ ko jël jox ko Aly Ngouille mu dugal ko ci plan Orsec bi te ñu bañ a vidéwaat suñu kees gi ak fi réew mi toll réew mi ah, opposition ay trois milliards bi yëpp nday fekk sax nag réew mi taxaw mais xam nga fi réew mi toll opposition bi heure bi sax seen réunion yi xamal lan lañ waroon di wax di wax ci mbënd meeg jafe-jafe gi te dak teg loolu ci suuf waaw teg loolu ci suuf ah. uh-huh. langal ko Macky Sall mi le taañaañel ko marché loo ko marqué ko le pas mais Macky boo xoolee ba ci biir sax contraire bi moo am opposition boo xam ne yaa war a marqué loo pas le pouvoir alaaji ah. mu waaxu ay jéegoom nga yor ya topp ko mais contraire bi moo am Macky Sall mooy marqué loolu la pas à l'opposition mhm. yor yatam topp leen ne leen acca waxtaane leen li wax ñu dem ba càng ëlbati ko ne ko monsieur le président waaye maintenant vous avez l'obligation de ñoom moom lañ wax léegi ne ko suñu waxtaanu yëpp léegi yow yow ñin daal tële nañ quoi mhm. yow kii tële ci wàllum gestion nga war ko topp taañaañoo ko dox ci maayinam Ablaye Wade pot de fleur sax alaaji bu waddoon ne tipp mhm. ñoom Macky Sall ñëpp jóg ak ñoom Idrissa toute l'opposition dal ci kawam wan réew mi yëpp ne leen pot de fleur benn bu nekk ca pale ba daanul maa moquette yi sax bu ñu ñëwee nee nañ fekkuñ ko fa dañ koo jiin sàcc ak pot de fleur yi kii moom nekk fee giraawaale yu dul jeex opposition bi au lieu wax waxte ñuy xool kan moo jiite kan moo ñàkk a jiite statut de eh, statut de l' constitution bi li mu ci wax dafa leer de ay chef de l' opposition yooyu waxuñu ko de statut am lañ doon wax di yegg ba ci ne dañ lay ndam ba ñetti milliards waaw ñetti milliards yi moom xanaa bu ñu ko joxee waa ji waa ji après day wàcc si koñam jox waa parti yëpp ñu dem xeexi mbën na wala leneen ak leneen man ñetti milliards yi laa bëgg a xam ah, daal lenn li ma sama doom ji wax sànq gis nga kii waxuma la ñetti mandat mais bu bëggee huit mandat da koy am. parce que ñi war a taxaw faire face àll lui jàkkaarloog moom taañaañal ko dindi ko ci yenn yi ñooñu ci boppam alaaji mais dafa mel ni moom lañ àndal. ñoo ñëpp bopp ak lu teew. Ah, lu teew ñu ko ànd ak Macky. moo tax urgence bi mooy ñoo xam ne biir réew mi. Ndakaaru ak ci biir réew hmm. na ci ñoo xam ne ils ont tout perdu. la ñu ñàkk en tout cas may ñaax ndaw ñi lépp ba ñàkkaale seen bopp ak ñi nekk bitim réew képp ku am xemmeem teef wut dëkkuwaay ak as néew. Hmm. mooy tindikul mooy tindikul coopérative d'habitat yi la sociétés yi mag yi di jaay. Hmm. mooy tindikul lotissement ay viabilisé yoo xamul fu mu nekk. ñëwal ba fii ni cëpp dem ci gox bu bu la neex boo xam ne à cent kilomètres de Dakar nga jën fa kër jàmm nga fa salaama nga fa afiya nga fa. duñ ko def de man de Dakar man de alaaji samedi ci ngoon. samedi ci ngoon ma jógee sama kër di di di yóbbu sama way juru jigéen laa yëg nekk na Dakar inondé na te daa yéen taw de ma nekk ci biir mais yëgu ma woon ni fenn inondé na. doo yëg dara tubaarkàlla jàmmee te sama kër Dakar 30 minutes ngay def ñu bisi ñu bisi fii nit ñi nit ñi yenoo fii nii te ndakaaru dootul tàqalikoo inondation dañoo baare dex yi commencé nañoo yenu ceeb bi de sama doom jàng may nettali léegi ne commencé nañoo jël seeni nit. ñu commencé dugg ci biir kër yi di calmer nit ñi. ceeb 2000 ceeb 2000 ceeb 2000. parce que xam nañ ne colère bi nekk ci dënnu nit ñi fi mu nekk nii ci biir ndox mi. ceeb léegi nag loolu la ñuy calmer nit ñi ceeb ceeb diwlin ceeb 2000 ceeb 2000 ceeb diwlin. ku lekk ceeb jàpp leen ci rek. ku lekk ceeb bi de yaa ngi lekk. boo fi bëggee def neuf mandat alaaji coow le mooy kii rek waaye da koy def te da koy am moom dafa am fu la am fayda ba pare te xam li mu bëgg.